Yabinala. Yabinala. ebi foog mu arrière ko asalaamaaleykum sama waa ASC bégee naa leen j'espère que yéen a si jàmm bu baax a baax a baax yàlla leen yàlla dafa sutura xéwal ak xaalis bu bëree bëri wax leen amin na xam naa ne ñuy wax amin à chaque fois ñu avance sama gars yi tey dañuy def vidéo ci kilibu naxte bi su ma trois wala xaw ma quatre personnes envoyé nañ ma ne ma lu tax defoo clip glow bi comme ni nga defoon ci Mia Guissé bi décortique mooy benn par benn parce que am na ñoo xamante ne ñi ngi seetaan ñoom dañuy seetaan di déglu son bi nii sama genre gi duñ xam lu ndax te di wax dañuy seetaan man li ma xam ma wax ko yéen tamit li ma xamul ma laaj leen ko ngeen tontu ma ko ci commentaire sama gars yi balaa vidéo bi di commencé merci d'aimer la abonnez-vous bu fekkee yaa ngi may a seetaan bu leen fàtte yéen i bi sama promo code 21 avril saa bu jeudi ngeen boni 156 000 francs lien bi naa ko def si commentaire. gars <laughs> rek bànn la. nee na foo mës a gis nit ku ñuy tëj te deewagul loolu dafa naa ne voix boobu. genre neex naa dégg ñëpp comprendre nañ ko maanaam nit koo xamante ne dañ koy jàpp di ko tëj te deewoogul loolu foo ko mës gis question la ndaxte mooy laaj loolu du man lu te lii laa xamul lu ndaxte wax nee na jël ko jël ko lu te tër ko rey ko dekkil kii moytu loolu ba dëgg fa neex yàlla moom xaw ma ko moom man maa ngi seetaan clip bi su ma juumal def na une semaine maa ngi déglu son bi gars yi ñu ngi koy tiktok mais xaw ma luy loolu dimbali leen ma loolu ci commentaire jël kóolute tër ko ray ko dekkal kii moytu dëgg fa neex moom loolu moom xaw ma ko moom xaw ma lu mu bëgg a wax quoi en fait jël kóolute tër ko ray dekkal kii moytu dekkal kii moytu moom xam naa ko mooy dekkal kii moytu ko xaw ma xaw ma ko ñu yeggale ah jàppale leen ma si commentaire fii mu ne boobu maa ngi jël puso di ñëw li mu xotti maanaam à chaque fois bu xottee dara rek mi ngi jël puso di ñaw di ñëw ah, ñu continuer matraque bu tegoon sama yaram fàttewuma ko maanaam matraque bi tegoon ci yaramam fàttewu ko ngeen dindi met yaakaar nga tasoon abandon yi ma dem ba miis ko maanaam maanaam yaakaar yim tas xama lim yaakaaroon amul ak abandon yi ngi dem ba miis ko ay abandon yu bëri yoo xamante ni moom daa dem ba miis abandon yi ñu continuer sama dund mel ni internet wax bu garaaw yi noonu maanaam internet Madame, internet dal internet internet Madame, internet c'est con internet dara du ci dëgg ñu ne li gis beaucoup ak li Ni ne ñëpp xam nañ internet internet la plupart des choses sur internet hein li gars yi di gis ak li am du bokk Madame, lu ci bëri assez archifo Madame, amenez-moi ñoo xamante ne li ñu wane vie internet ak seen vie naturelle ak seen vie normale beaucoup. bu demee fee ni la ñuy mel après seen vie normal ñu mel ne ok ñu continuer gént gi jeex na léegi maa ngi nii di free maanaam moom ci ay gént la ne ci ay gént la nekkoon daal lañu bëgg a wax nee moom gént ci ay gént la nekkoon ah ñu continuer amatul benn rëcc lu mu weesu maanaam lim maanaam li mu jot weesu noonu ba ba ba passé ko amul lenn loo xamante ni moom mi ngi koy réccu moom ndaxte waaw. dama xase wane ginnaaw du ma geesu. dama xase ginnaaw daa xase wane ginnaaw moom te du geesu loolu la wax am na fu naa ah loolu su ma naa dee. yàbbi naa la <laughs> yàbbi naa la. ah. <coughs> Eh, ko. maanaam yàbbi naa la maanaam maanaam maanaam li wax fii moo ñaaw daal maanaam maanaam nee ko soxoon mais yàbbi na ko ba pare ne ah li ñaaw na waaye lii foog foog ñu dégluwaat ko. yàbbi naa la. <laughs> lii rey na ma ñu continuer. du ma lekkaat. yàbbi naa la du la lekkaat maanaam moom nee pare na ca moom ak lu munti xew moom pare na ah affaire yi métti na de. waaw léegi bu ñu xëyoon ñu ne ndaxte ak jëkkëram ji jiwoo nañ nag. ah jamais. demal nga déglu Mbaye Gueye bu ko forcé léegi ñun dañuy dem déglu Mbaye Gueye ñu xool lu ndaxte lu Mbaye Gueye Faye waxoon. am na ñoo xamante ni sama genre bi wax dëgg fa yàlla dañuy déglu kii duñu xam lu mu wax duñu xam lan la bëgg a wax rek ambiance <laughs> sama genre gi. ñu xool Mbaye Gueye Faye lan la wax déglu ma lu yàqu yow ku mënul laaj sewoo lu yàqu yow soo lu yàq yow quoi en fait maanaam ndaxte dafa bëgg a wax léegi ku mënul bawoo lu yàq yow bu ko forcé ah for ñu yeggali ci ndax demee mu ne kàkk taar bëri jukko lañ ko xamee maanaam kàkkat ñëpp xam nañ kàkkataar ni mu mel kàkkataar mooy mel nii tey su mu mel nee su mu mel nee après mu ne demal nga déglu may gay fay bu ko forcer. lépp lu mu wax lépp lu mu wax kaay uh-huh. maanaam lépp lu mu bëgg a lépp dafa bëgg a wax que ni lépp lu mu wax ay fen la quoi en fait su ma mais eh, eh, eh, clip bi dafa xeere de ak ah, yàlla clip bi dafa xeere clip bi dafa neex moo tax ba léegi tendance un ba pare gars yi ñu ngi koy tiktok ba léegi te teewul yeneen yeneen yeneen coow ñu ngi am te clip bi ça reste ñu yeggali voie ah lan la waxaat nee mel ni weer ñu koy seen ci kaw lum maanaam kan la bëgg a nekk nii lool lool lay wax mel ni weer ñu koy séen ci kaw lépp lu mu nekk mu glow up maanaam lépp lu mu nekk rek day glow ba pare jóg ci kaw c'est c'est fort et léegi nag <laughs> wala gën a ñaaw ci wax di moom ah nekkatul jëkkëram mu na ko et eh, amigo léegi xarit la ko jàppee <laughs> ay amigo man maa la off maanaam man maa la bàyyi koona nag fii laa la ba demal nga toog loolu ñëpp xam nañ ko bàyyi naa la demal nga toog nee na moo ngi jonga ma lu neex lay lay li la seet tët tët léegi moom yaa moom sa bopp moom ah léegi moom maa moom sama bopp maa ngi jonga ma lu neex mel ni Rose Valentin ok. foo ma séenee mooy xaw ma lan texte di xeet neex loolu moom dara fay ko. nee na moo yëngal àdduna. waaye mhm. waaye may ndaxte àdduna bi boo ko jëngalee àdduna bi bëri na de. sax waaru na. après lenn mooy ñëwaat gént gi jeex na léegi maa ngi free. gént gi jeex na léegi maa ngi di free. amatuma benn wetu fort c'est fort daal c'est fort. yéen ma ko doon laaj ay see bi def naa ci vidéo <laughs> kon nag like leen vidéo bi après euh, dis-moi en commentaire quel clip ban clip ngeen bëgg ñu jël def si vidéo xool voix yi lan lan la wax après yaa ma gën a xam léegi moom damay mel ni chroniqueur moom maa leen ko wax.